الشيطان الرجيم من لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم sëriñ bi nee na mbokki jullit yi fi teew sëriñ bi nee na mi nga ànd ak rakam yii mu ni sëriñ Basiiru ak sëñ Mbay ak sëñ Seex ñoom ña nga fee liggéey bi rek la bokk ndax lii moo jóge fii dem fële sëriñ bi nee na waaye lépp ci liggéey bi rek benn liggéey bi rek ñoo ko bokk lii jóge fii mooy dem fee. sëriñ bi nee na nekk fii moo nekk foofa. nee na sëriñ Seex a ngi nii. ak rakam yi. sëriñ bi nee na mbooloo mépp a ngi nii ñoom ñëpp a ngi nii. sëriñ Seex Alim moo féete ci kër gi moom. sëriñ Seex Alim mi moo féete ci kër gi. sëriñ bi nee na sëriñ Seex a ngi koy dimbali ci bu baax. am at du ma fi jaar. nee na mën naa amum at du fi jaar te nee na dara it yàquwu fi nee na lu fi bëgg a yàqu mu defar ko sëriñ bi nee na bis bi waacaayu yëpp sëriñ seex mi ma nga ca mattama ma nga ca nag ya ma nga ci lépp rek loo xam ni ab coono la ci kër gi te ci saahir nee na loolu dara ñeelu ko ci nee na loolu lépp pas-pasam ak defar rek sëriñ mi nee na loolu moom la ñuy seedeel nun mbooloo mii. sëriñ mi nee na ginnaaw bu mu nuyoo nun taalibe yi. sëriñ mi nee na mi ngi nuyu sant. nee na mi ngi nuyu gërëm. nee na mi ngi nuy ñaanal. yàlla ak yonent bi. ak xaadimu rasul. ak Seex Isaa Jeen. sëñ Baara mi santaane woon bis bii. ak sëñ Baara jenn mi santaane woon bis bii. ak doomam ji ma ko doon santaaneel. ak doomam ji ma ko doon santaaneel. yàlla faj seeni aajo. yàlla faj suñuy aajo. faj aajo yi képp koo xam ne teg nga sa tànk. nee yi képp koo xam ne teg na ab tànkam. am nañ ci yaakaar lool. sëriñ bi nee na am na ci yaakaar lool. ñoo ko sosoon. neex nee na bis bii du moom mii moo ko sosoon. sëñ Baara Jenn moo ko santaane woon. nee na sëñ Baara Jenn moo ko santaane woon. wax ko Serigne Sidi mi fi njëkkoon a nekk. wax ko Serigne Sidi mi fi njëkkoon a nekk. mu ànd ak mbooloo mi. mu ànd ak mbooloo mi. di ko def. booba sax dawul mel nii. nee booba sax dawul mel nii. waaye sëñ Baara. nee na waaye sëñ Baara. buñ nee suba la. buñ nee suba la. dana jógee Daara Sidi. dana jógee Daara Sidi. ñëw fanaan si. ñëw fanaan si fii. ba bi muy reere. ba reer bi muy reere. ba fii fii lay jógee. ñu yët ko ko. kon loolu moo ko santaane. sëriñ bi nee na kon loolu sëriñ Baara Jëll moo ko santaane woon. moom suuxat rek. nee na ñoom nag suuxat rek. moo ñu ci war moom moo ci moo leen ci war. keroog ba ko ba mu koy wax sëriñ Sidi. nee na ba mu koy wax sëriñ Sidi. nee na ko da cee waxtaan ak mbéykan. nee na da ko woon da ci waxtaan ak mbéykan. ak sëriñ Thiam. ak sëriñ Thiam. ñu di ko doxal. ñu di ko doxal. ba mu agsi fii. njënd gépp nag. njënd gépp nag. ànd ñoo ànd ceeg ñoom. ànd ceeg ñoom. kilifa yee dem. kilifa dem. ak ñi fi yàlla bàyyee. ak ñi fi yàlla bàyyeegul. ñëpp. ñëpp koo amul woon ngant rek di nga ñëw mbaa nga yebal sa doom mbaa nga yebal ku mata yónni ñun nag biñ saa yuñ koy def rek sëriñ bi nee na ñoom nag saa yuñ koy def ndigal loola ndigal loolee moom la ñuy yeesalaat ku fi nekkal Cheikh Issa ndax nee na sëñ Abdou la mu joxe ci ndigal mu jox leen ci ndigal. Serigne Soy bi mu toogal Serigne Baara. Serigne Soy bi mu toogal Serigne Baara. di sunu wasila. di sunu wasila. naka noonu. naka noona. waxtu wu nekk. waxtu wu nekk. dañ cee waxtaan ak moom. dañ cee waxtaan ak moom. ñu daa ko ànd ak ñoom it. ñu daa ko ànd ak ñoom it. njabootu njëriñ yi nag. nee na njabootu njëriñ gépp. su ma su limee. damay juum. day juum. waaye damay tënk rek. waaye nee day tënk rek. sëñ Abdou Latif sëñ Abdou Latif ay doomam ñëw nañ fi njabootu sëñ Naar Jenn njabootu sëñ Naar Jenn sëñ Sidi sëñ Sidi ñëw na ñëw na ànd ak njaboot ànd ak njaboot jëpp sëriñ seexum sëriñ yuusu sëriñ seexum sëriñ yuusu naka noonu ñëw na waa kër sëriñ Mbàkke mu mag waa kër sëriñ Mbàkke mu mag sëriñ Seex sëriñ Seex kenn desut kenn desut waa kër Serigne Cheikh Abdou Alim. waa kër Serigne Cheikh Abdoul Alim. ñëpp ñëw nañu. ñëpp ñëw nañu. waa kër Serigne Dame Dieng. waa kër Serigne Dame Dieng. fii lañ leen fekk. nee na fii lañ leen fekk. ñu teeru lañu gan ñi. ñu teeru leen gan ñi. waa kër Serigne Sidi Xay. waa kër Serigne Sidi Xay. njabootu Serigne Bassirou. waa euh, njabootu Serigne Bassirou. ñëpp ñëw nañu. nee na ñëpp ñëw nañu. Serigne Naar. Serigne Naar. moom Serigne Bassirou. moom Serigne Bassirou. yónnee na fi gàtt bu gàtt bu mag. nee na yónnee na fi gàtt bu mag. ak ceeb bu bari. ak ceeb bu bari. Euh, ay ndaw ma ay ndawam ñoo ko andi. Basiirou Ba Basiirou Ba. kilifa yu fi ñëwit. nee na kilifa yu fi ñëwit. jàpp nañ ko jàpp nañ ko. du may baaxoo sax. nee na du bay du baaxoo sax. di nangu di nangu. xaalis yi bàyyi ko ci kilifa yi. xaalis yi bàyyi ko ci kilifa yi. ndax loolu daa bokk ci sa mbañ. nee moom loola daa bokk ci mbañam. waaye. waaye. koo ko delloo ko delloo mun la joxuma ko mun la joxuma ko sëriñ Mbàkke joxum sëriñ Mbàkke la ko siyaaree la ko la ko siyaaree loolu nag du am ngant nee na loolu nag du am ngant nee na ngant du ca mën am xanaa lay bàyyi ko ci ñoom rek nee na xanaa nag lay bàyyi ko ci ñoom rek lu ci bari rek lu ca bari rek mu jaat ci loxoy kilifa mu jaat ci loxoy kilifa yi man noonu lay ndax nee na moom mii noonu rek lay doxee di leen xamal ni nag nee na sëñ na mi ngi nuy xamal nag ñoo ngi sant yàlla bu baax ñu ngi sant yàlla bu baax di sant yonentam bu baax nee na mi ngi santit bu baax borom kër gi. fàggul nañu ay fàggu yoo xam ni. nee na ndax sëriñ bi fàggul na leen fàggu yoo xam ni. ñun waxuñu ko moom moo ko wax. ñoom ñii de waxuñu ko sëriñ bee ko wax. moo nu woon ban toog. nee na moo leen woon bañ toog. mu ni mu ni leen. booba booba. moog sëriñ ba ñoo fa nekk. moog sëriñ Basiiru moo fi nekk. yéen ñaar ñii. nee na yéen ñaar ñii mu ni leen yéen ñaar ñii. digal naa leen. digal naa leen. lépp lu am. lépp lu ngeen am na ko bokk ak seeni morom na ngeen ko bokk ak seeni morom loola loola mooy ñi ci des ñëpp mooy ñi ci des ñëpp ndax dénkaane bi benn rek la noonu la doon doxee sëriñ bi nee na sëñ Mbàkke jenn noonu rek la doon doxee nee na loolu it la leen dénk di eh? nijaay këli nijaay këli nee na ma nee na ko at ma kafe jafee ab at ma kafe jafee kenn mënu ko am kenn mënu koo am nee na ànd moom ñu dem ba gusaas ñu dem ba gusaas di wër kafe di wër kafe ba ba ba jot ba midi jot am ñetti kilo nee na ñoo am ñetti kilo sëriñ sooy bu mii sëriñ sooy bu mii fekk ko ca eh, gaaras ba nee na fekk ko ca ñu nuyoo mu ko looy mbaa jàmm ngay wut si fii sëriñ bi ne ko mbaa jàmm ngay wut si fii mu ne ko café da laa doon wut si mu ne ko café da laa doon wut ndax tàmm gi mu ne ko këli jëlal ñett yëpp jox ko sëriñ bi ne ko këli jëlal ñett yëpp jox ko nee bi te ma ko jox benn bi tey te yóbbu ñaar yi bi te ma ko jox benn bi te yóbbu ñaar yi mu ne ko jëlal yëpp jox ko sëriñ Mbàkke ko jëlal ñett yëpp jox bañ ko joxee nee bañ ko joxee bu ñu ñëwee. am ko bàyyi ko Kaolack. am ko bàyyi ko Kaolack. ni Moussa Diop. ni Moussa Diop. Alaaji Moussa Diop. Alaaji Moussa Diop. moo ko yónni. ni ni moo ko yónni. andi fi café gu bari. andi fi kafe gu bari. kon ndax loola. ku xam yàlla noonu lay def. nee na ku xam yàlla noonu nii lay def. maanaam da ngay am xol. nee na da ngay am xol. da ngay amit yéene. da ngay amit yéene. ndax Serigne Touba. ndax li muy bari bari. li muy bari bari. li muy bari bari le. li muy bari le bari le. ak faydu gu yàlla def ci moom. ak faydu gu yàlla def ci moom. xam ne fu ne ma nga fay tuur di baawaan. ndax fu ne ndax ndax fu ne ma nga fay tuur di baawaan. ku jotewul ak moom dara. ku jotewul ak moom dara. jotewu leen dara. kon loolu. nee na sëñ bi nee na kon loolu. day dëgëral rek suñu pas-pas. day dëgëral rek pas-pasam. nee na pas-pas ñoom ñii. nañ féetee yàlla. sëriñ bi nee na nañ féetee yàlla. te ànd ak moom. te doyloo ko. wa man yatawakkal ala llaahi fa huwa hasbuhu képp koo xam ne képp koo xam ne da ngaa ngooy ci yàlla fekk da fekk muy ku doy. ndax yàlla. ndax yàlla. kartan yi fi nekk. kartan yi fi nekk. koo ko a gisee. ak ci koo ko mën a gisee. ci moom la bàyyi ko. teraanga yëpp. teraanga yëpp yëpp yëpp. yi nga xam ne araamul ab julit. yi nga xam ne araamul ab julit. yonente bi. yonente bi. sallallahu alayhi wa sallam. moom la ko yàlla wàcce. moom la ko yàlla wàcce ci moom. moo tax mu wàcce ko. moo tax mu wàcce ko. sëñ Tuubaa bind na ko. sëñ Tuubaa bind na ko. ci taxmiis. ci taxmiis. ko budul woon yow. sëriñ ko budul woon yow. dara du dara du am lu ñuy tedde tay ak ëlëk loolu nak loolu nak nan ko bayyi xel bu baax nan ko bayyi xel bu baax ci top ay ndigeelam di dawit ay terem di dawit ay tereem di xoolit li nga xamni ni di xoolit li nga xam ni la fi mag ñi bayyi won ñuy dox doxine yooyu ñuy dox doxin yooyee te bañ ci rax dara rek te bañ cee rax dara dara lu dul yàllay kese lu dul yàllay kese léegi lay netal rek serigne bi nee na lay netal rek dama dem njaasan nee dafa dem njaasan am fa ñetti fan am fa ñetti fan. sama wala réew wu nekk. nee wala réew mu fa nekk. sëñ Moustapha Kounta. ñu di ko wax sëñ Moustapha Kounta. sëñ Moustapha Kounta. sëñ Moustapha Kounta. ku baax la woon ci ñoom. nee na baax la woon ci ñoom. daa wàcc liggéey ren la ci ñetti at. daa wàcc liggéey ren la ci ñetti at. yàlla bu mag la woon. jaamukatu yàlla bu mag la woon. nee na ba mu demee bay tagoo mu ne ko Ousmane wool ma sëñ jenn moom yi. mu ne ko Ousmane wool ma sëñ jenn moom yi. sëñ mi nee na ma ñëw agsi. àgg nuyu ko. àgg nuyu ko. mu ma dese ngeen fa ay baaya. mu ne ma ndax dese ngeen fa ay baaya. mu ne ko waaw. mu ne dese ngeen fa ay maam. nee na mu ne ko waaw. mu ne ma nit du weddi boppam. sëriñ bi ne ko nee na mu ne ko nit du weddi boppam. xam nga lay weddi sa bopp. nee na ko xam nga luy weddi sa bopp. ni nga bëgg nit ñi def la ko. ni nga bëgg nit ñi def la ko. def ko ñi la yilif. def ko ñi la yilif. loola. loola. loolu la ko wax. tekkil ma ko ko ko. ma leen xamal ne man ñii ma àndal. sëriñ bi nee na mi ngi lay xamal ni moom ñii mu àndal. ñii ñu di ay rak. ak doom ak i doom. dese luñ ko dara. nee na sëriñ dese luñ ko dara. ci wàllu topp gi ci wàllu topp gi. yàlla rek te yàlla rek. moo tax ak sëriñ Touba ak sëriñ Touba. ak Cheikh Issa. yéen taalibe yi. nee na ñun taalibe seen ngëm. sunu ngëm waxtu wu nekk gis na ni mi ngi gën a dëgër Cheikh Issa Dieng nag Cheikh Issa Dieng nag Sëñ Tuubaa da ko defal xaas yoo xam ne Cheikh Sëñ Tuubaa da ko defal xaas yoo xam ni ku moom ku dul moom ñeewoo woon nga ko ndax sëriñ bi amoon na ci moom ak bëgg amoon na ci moom ak bëgg mas nañoo laaj tubaab bi mas naa am benn laaj bu mu laaj benn asila bu mu def sëriñ bi nee na bi mas naa laaj sëriñ bi benn esale bi mu def. benn benn euh, tubaab bi moo def benn laaj. nee na sëriñ euh, tubaab bi def moo def benn laaj. ni ëpp lu muy gis sëñ tubaa ci bi. ni ko kan moo ëpp lu muy gis sëñ tubaa ci semaine bi. am ku ko ni am ku ko ni Issa Diène ak Cheikh Anta. ñoo ëpp lu koy gis. ñoo ëpp lu ñuy gis sëriñ tubaa. ci weer wala semaine. ci weer wala semaine. loolee nag. nee na loolee nag. ay mbir la woon ay mbir woon. sëriñ Soy bu Mbakke. radiyallahu taala anhu. sëñ Mahamadan. sëñ Mahamadan. moo ko yar te moo ko nettali. moo ko yar te moo ko ko nettali. bi sëriñ bu mag bi. na wàcceeb liggéey. bi sëriñ bu mag bi wàcceeb liggéey. fam don denc ay bagasam fam doon denc ay bagaasam. leetar yi Cheikh Issa bind. leetar yi Cheikh Issa bind. roñ nañ ko ñetti fan. roñ ko ci yi. te te bu rek. te bu rek. la nangam rek. la nangam rek. kon kon. am nañ sas bu rëy. ñun kon am nañu sas bu rëy. man de. nee moom day. lenn rek. lenn rek. lay santaane mu jëm ci mbooloo mi. moom lay santaane mu jëm ci suñ mbooloo mi. addiya yi nga xam ni. addiya yi nga xam ni. day jaar ci ñun. day jaar ci moom yi di dem ci ay kilifaam. lii nee na lii. sëñ Cheikh mi moo koy laaj. moo koy laaj. ànd koog rakam yi. ànd koog rakam yi. si sëñ Basiru. moo koy laaj. moo sëñ Basiru mooy laaj yeneen yi ci des. la jóge ci ñoom sëñ Bay. la jóge ci ñoom sëñ Bay. bu dajee. nee bu dajee. ñun ñun ñëpp ñu bokk toog ñu bokk toog Baye Sidé ngi nii ak ñoom Moussa Dioum ñoom ñu wàññi ko ñu yóbbu ko ci Serigne Souhaïbou mi fi nekkal Serigne Bara Diène Serigne bi nee bu loolu jàllee nee na du sonal kenn ci dara ndax ab jaam ab jaam wakilu gi ma waxoon rek waxtu wu nekk alxuraan da koy yeesal. na waxtu wu nekk alxuraan da koy yeesal. wa alallaahi. wa alallaahi. fatawakkaloo. fatawakkaloo. in kuntum mu'miniina. nee na nit su gëmee yàlla. na nit su gëmee yàlla. daa war a wakkilu ci yàlla. daa war a wakkilu ci yàlla. tangooy ci moom. doxiinu xaqiiqa nag. mooy sonal nit. mooy sonal nit. waaye doxiinu sariha. waaye doxalu sariha. sonalul nit. sonalul ndax moom daa yomb. ndax moom daa bii li ko tax a diis joxe alal day laajit joxe alal moo tax mu gën a diis moo tax mu gën a diis moo tax mag ñi moo tax mag ñi ñambaasoon ko ñambaasoon ko ci sariatu ci sariatu di ko yéege ci yàlla di ko yéege ci yàlla waaye waaye du lu ñuy bànneexoo waaye du lu ñuy bànneexoo du lu ñuy bëggee ndax ñàkku gor ndax ñàkku gor lu diis la lu diis la ci aji xam ci aji xam ndax ndax fa mu war a jëm fa war a jëm mooy ci yàlla mooy ci yàlla ak ci yonent bi ak Serigne Touba Serigne bi nee na nan góorgóorlu bu baax sëñ Basiru Jeen dey noonu na ko loo digg dégg njàmbaarug nit loo dégg dégg njàmbaarug nit ak lum bari bari bari ak lum bari bari bari jotul ñu jiitu jotul ñu jiitu woon seen pënd waaye mu ne ko ba yàgg ne ko seen pënd sax seenunu ko ndax ndax yanu ay yan yanu ay yan jëmee ko ci yéen jolof. jëmee ko ci jolof. boo sonnee. boo sonnee. waaf ci taatu geer. waaf ci taatu geer. boo jógee yanuwaat. boo jógee yanuwaat. di dem di dem. te booba amul yoon. te nee na booba amul yoon. réew mi tàng na. réew mi tàng na. lu ne mën naa xew. lu ne mën na cee xew. loolu moo doon doxinu mag ñi. nee na loolee moo nekkoon doxinu mag ñi. ak sax lu ko gën a métti. ak lu ko gën a métti. mboolem seen jëf yi ngeen jëf yëpp. sëñ bi nee na jëf yi ñu jëf yëpp. nee yoon seen yoon newu ci Serigne Touba moo koy nangu mas na sëriñ bi nee na mas naa am seex bu jógee boori ngaay nee na sëriñ bi nee na mas naa am seex bu jógee boori ngaay ñëw njaareem di addi addiyaam ci sëriñ bi ñu ni ko dafa fatu de daa fatu de te nee na soxlawu fee gis kenn nee na soxlawu fee gis kenn digganteem ak boromam rek nañ ko may dat nangam. nañ ko may dat nangam. ba dat nangam ba dat ba dat nangam. mu daal di mu daal di jël addiye ji. nee na mu daal di jël addiye ji. takk ko ci am mbuus. takk ko ci am mbuus. Eh, eh, kër gi. nee na dikk ba tolloo kër gi. ci genn kees ci kees ci genn kees ci kees yi. mu sànni ko fa mu ni put. nee na mu sànni fa addiyaam joojee mu ni put ci kees googee. mu daal di wuti gaar ba. mu daal di wuti gaar ba. sëñ bi sëñ bi daal di fëgg. sëñ bi daal di fëgg. am ko génn am ko génn mu ni ko mu ni ko damal dabal ma jaay yàlla ba jëm ca war waayo mu ni ko damal dabal ma jaay yàlla ba bay jëm ca war waayo nga woo ko mu ñëw nga woo ko mu ñëw mu ne ba mu ñëwee mu si bi xamal ko ni ko sëriñ bi xamal ko ni ko dama noonu du ma gisee nit dama noonu du ma gisee ak waaye lenn rek laa lay xamal waaye lenn rek laa xamal fii fii jëf du fi yàqoo ak sa oh. foofee nag foofee nag mooy barab yi ngay dégg yëpp mooy barab yi ngay dégg yëpp ci yoonu Sëriñ Tuubaa ci yoonu Sëriñ Tuubaa lépp loo xam ni lépp ko te jox ko ku mat a jox te ko ku mat a jox sëriñ bee koy nangul boppam kon nag lu ñaan lu dul rek yàlla faj aajo yi ñu gën a sonn ci kër sëriñ bi ñu a sonn ci kër sëriñ bi def ci liñ man def ci liñ man jéem ci luñ mënul jéem ndax wàccuwaay la yoo xam ni. wàccuwaay la yoo xam ni. bokk na ci lii tënk. bokk na ci lii tënk. taalibe yi taalibe yi. ndax barab boo xam ni. barab boo xam ni. fa ngay dalale. fa ngay dalale. fa ngay terale. fa fa sa ko. bu fa sa kilifa bàyyi ko. loo man rek. loo man ci yeesal ko. ci yeesal ko. ak defaraat ko. def ci la nga mën lépp. sant nañ leen. sëriñ na sant nañu. gërëm na leen. ndax Baye Sidi li jaar ci yéen daayira bi yëpp jox na ko ko sëñ bi nee na mi ngi sant waa daayira bi yëpp nee na mi ngi li gërëm mi ngi ñaanal it tali bi yëpp sëñ bi nee na dana ko delloo ci liggéey bi sëñ Tuubaa bi mu delluwaat ci biir ñeel nu ndax ak ak képp ku ci jëf seriñ bi nee na nan lu ci lislaam akuk taalibe am seetantal bu baax. te am seetantal bu baax. ci lu baax ci lu baax. ak lu baaxul ak lu baaxul. lu baax nag lu baax nag. yomb naa xam yomb naa xam. mooy lépp loo xam ni. mooy lépp loo xam ni. boo koy def doo nëbbutu doo ruus kenn fekk la fa nee na loolu moom mooy lu baax lépp loo xam ni safaan bala mooy loo xam ni boo koy def doo bëgg kenn fekk la fa ta fekk yàlla moom ma nga lay gis ak taalibe bi daal neex na lool. ndax baat bi li muy tekki ñëpp xam na ko mooy kuy sàkku te la muy sàkku te la muy sàkku di lu di lu baax te mu yaakaar ko it fa muy fa mu koy sàkkoo baat bi max naa mi loolu rek lay tekki sëriñ Baara Jeen nag mas na koo wax ni Suhaybu na ngeen góorgóorlu danaa la wax loo xam ne de danaa la wax loo xam ne de sa maam Seex moo ko ko waxoon Mat Lamin ba mu wuyu ko ba mu ñetti yoon mu ne ko dénk naa la bul tas yaakaar loolee daan nañ gis mu di ko jëfe di ko waxee ay pël ay pël ak ci séeréer ak xeet wu nekk ñëw na fii daal di fekk ko daal di siidi mu di leen jox alalam di yeewi buumu xar di leen jox mu yóbbu ñu yóbbu du xam du seet ku mu xam ak ku mu xamul yow mi nga xam ne yaay aji jëf ji daal ni nga jaayantee ñëw ci moom ni nga jaayantee ñëw ci moom da nga fekk mu jaayante ak sëñ Tuubaa noonee bay def sax lu ko raw ndax it ndax it fekk nañ ci moom it nag as lëf ndax lu toll ni weer lu toll ni weer ak fukki fan yoo xam ni bis bu set dana xëy fi moom dana xëy fi moom ba mi di jot gont si fi moom gont si fi moom ba six heures jot ba six heures jot ma door a dem mu door a dem ndax moo ma ko digaloon ndax loolu sëñ Bara jël moo ko ko digaloon di ko liggéeyloo saytaane ci pexe yi saytaane ci pexe yi ma daw mu daw dem ca ah, liggéeyukaay ba dem ca liggéeyukaay ba Dawda Diop Dawda moo ko fa fekk. ak xéewal jëng mii. ak xéewal jëng mii. ne ko ñëwal wuyu. mu ñëw mu ñëw mu ne ko. mu ne ko foo demoon. mu ne ko ca liggéey ba. mu ne ko ca liggéey ba. sëriñ bi ne ko bu ko defati de. dama lay liggéeyloo. mu ne ko dama lay liggéeyloo. dama doon barkeelu rek. sëriñ bi ne ko dama doon barkeelu rek. waaye moom ndigal li ñooyam. sëriñ Ba ne ko moom ndigal li mooy ñooyam. xame naa fa loo xam ni. sëriñ bi nee na xame na ci wàllu sëriñ Baaru googu loo xam ni. bari na lool lool lool lool. bari na lool lool lool lool. nee na loo xam ni mënu ko sax a wax ci mbooloo mbooloo mi. ndax ku yàlla mayoon la. ndax ku yàlla mayoon la. ba ci demam sax. ba ci demoon sax. maag soxna Khady Gaye. maag soxna Khady Gaye. ko. ko ko. Laat mii seedal la ci. sëñ mii seedal la ci. da koo woo. mu ne bindal ma nangam ak nangam. sëriñ mi ne ma bind ko. mu yow yët ko ko. mu def ko ci paan gi. mu def ko ci paan gi. dem sangu. dem sangu ñëwaat. ñëwaat. ni ko demal wool ma Khady Gaye. ni ko demal ma Soxna Khady Gaye. ma woo Soxna Khady ñëw toog. sëriñ bi nee na ma woo Soxna Khady mu ñëw toog. laabal ci sa alali bopp. mu ni ko làmbal ci sa alali bopp jox ko sooy bu mii jox ko ma bindal lii mu ko bindal mu bindal la ko mu bindal la ko su ko deful su ko defut soo ko deful soo ko defut li may bëgg a dal dina la dal li may bëgg a dal dana la dal waaye noonu xamuñu lu mu doon nag wax dëgg waaye nee na moom day xamuñu woon lan moom lan la woon ba ma ñëwee di jaare soxna xadi nag sëriñ bi nee na ba mu dikkee di jaare na xadi dama ne moo jenn nekkate li ñu doon la woon sëriñ soxna xadi gay da doon wax ku nekk ak moom ku nekk ak moom rek benn bis rek na doy na ndax ndax sëriñ Touba rek ngay gis ci moom rek ngay gis ci moom ak Cheikh Issa ak doxin woo xam ni ak doxin woo xam ni wu dëggu lay doon woo xam ni dara dara du ci làqutu dara dara du ci làqutu sëriñ Touba lay nettali mooy waxtaanam mooy jëfam mooy léppam kere de sëriñ Abo Mbacke mii nekk xalifa sëriñ Fallou tey. sëriñ Abo Mbacke mii nekk xalifa sëriñ Fallou tey. waajuram waajuram. soxna maam Say Fall. soxna maam Say Fall. togg na fa booli boo xam ni. togg na fa booli boo xam ni. ndab lu rëyee noonu. ndab lu rëyee noonee. gëj naa koo gis. nee na moom mii de gëj naa gis loola. fees dell ak i bagage rek. fees dell ak i bagage rek. pom ji sax dañ koo jóor ci kaw. nee na pom ji sax dañ koo jóor ca kaw. mu yan ko mu yan ko doomi sëriñ Muudu Aminta. mu yan ko doomi sëriñ Muudu Aminta. ju jigéen sëriñ bi nee na maa ko ko jàppale. ba teg ko ci kanamu sëñ bi. mu ubbi ko mu yem ko lol mu ne ko saa maam de mo la ko jox neena nga ñaanal ko te ñaanal serigne abo neena nga ñaanal ko te ñaanal serigne abo mu ne ko lim bëgg dana ko am sëriñ bi ne ko sëriñ baara ne ko ni mu ubbil ni mu ko ubbil nee na ma mu tàng jër mu bi neena serigne baara jël wantaay gi diko upp neena mu daal dem andi wante lettre ba rof ko ci prise bi roof ko ci prise bi daal di koy yokk ko mu ni cey gone ñoo xarala. mu daal ni fir cey gone tey ñoo xarala. ba ba ba mu sedd. nee na ba mu sedd. sëñ bi at cey xewlu. mu woo soxna Xadi. mu woo soxna Xadi. mu jël ko yóbbu. nee na ndab loolee. yeneen topp na ca sax nee des ko mënta nettali waaye nag li am solo nag nan doon ab taalibe rek nangoo jaamu yàlla ta bañ a sikki sàkk dara ci mbirum sëñ Tuubaa ndax loolu ndax loolu ndax loolu ndax loolu bari na ci jamono ji bari na ci jamono ji ci waxu gaa yeeg ci waxu gaa yeeg yu nekk te loolu lépp pexem iblis la pexem iblis rek la waaye sëriñ bi moom li mu andi. ku ko gis da nga xam ne lii la. ku ko gis da nga xam ne lii la. lu mu andiwul. lu mu andiwul. boo ko xoolee. boo ko xoolee. da nga xam ne du lii. da boo ko xoolee da nga xam ne lii du moom. loolu doy na sëkk. taalibe gi. du ràpp mukk. ndax bu doon ràpp. lislaam ci boppam. day ràpp. nit ñi nag ñooy ràppal seeni xol. nit ñi nag ñoom ñooy ràppal seeni xol. waaye nees ko doon doxalee démb rek. waaye nees ko doon doxalee démb nag. mooy doxalinu tey wi. déglu ndigal rek. doonum taalibe rek. rafetal sa lislaam rafetal sa taalibe képp ku ko def ëllëg da nga am waay woo xam ni doo ñee kenn ndax mag ñi fi newoon ndax li ngay xam ni ñoom li ñu nekkoon dëgg la ku fi mas a nekk bala ngaa faatu bala ko yàlla mayee nga wax di nga dénk sa njaboot yoonu sëñ Tuubaa wi nga nekkoon tam lu wóor la ni da ngay wàcc bu doon bu fekkoon ne woon wérul nit bu demee bay waajtaay dana tali njabootam lam nekkoon ba kon nga xam ne lii du dëgg sëñ bi nee na seen jëf bari na lool ci yoon wi waaye duñ ko rëccu ndax ndax sëñ Tuubaa ku ko defal dana la fay te wóor na ko ni mi ngi nuy fayit sëñ bi naan kon daal nan sant rek ñaan sunu kilifa yàgg fi nu yàgg fi nun ñii te nu wér te am jàmm te am xéewal nee si mi nee mi ngi lu koy ñaanal nag ci barkeb sëñ Tuubaa ak Seex Isaa mi nga xam ni yaakaaruñ ko dul moom te lépp lu fi moom nekk muy lu rëy ak lu gàtt moo ko faggu ci kër sëñ Touba andi ko andi lu ko ci jamono yu jafe jamono yu naqare faggu jamono yi lëndam loolee nag nañ ci góorgóorlu bu baax a baax te gëm loolu te topp ko sëriñ bi nag nee na moom nag képp koo xam ni bëgg nga yàlla bëgg nga yàlla bëgg nga yonente bi foo mën a nekk ci àdduna rek sëriñ bi nee na moom de bëgg na la te def na la ci xolam la nga amit soxla na ko ci mooy lu baax la ko yàlla la la yàlla jox sëriñ bi nee na mi ngi tënk foofu ay kàddu am am ndax sëriñ bi nee na wax dëgg yàlla nee na yaakaaroon ne sax mbooloo mi toll nii ndax ñaari at yi ñu ko wóotewul te mu doonoon ndigal lu bàyyi ko ci kilifa gi te mu jiyaatu lool ci àdduna bi ñu ngi ko jëfee naa sëñ loola bu dee dëgg it bu dul dëgg lépp li kilifa yi digle rek moom kilifa yi lañ digle rek dëgg la sëñ bi nee na nu fas yéene di yokk bis bi rek suñu borom bàyyi bare bare te bàyyi leen fi te ñu wér jërëjëf